bismillahi rahmaani rahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñi déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk alin Badara Socé Sud FM seen rajo ci seen jataay yi tafsir yi mu leen defal bés waxtu wi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 aaya 49 cinquante 51 ay ni ñu ko baaxu defe mooy jàngal aayaat dooru ñëw ci jéem a firi ak jéem a tekki aoudu billahi min asheytaani rrajim wa min kulli sheyin xalaqna zawjayni laallakum tadakkaruun fafirru ila lakum minhu nadirun mubin wala tajcaluu maa allahi ilahan axar inni lakum minhu nadirun mubin sadaqallaahu al-aziim wa ballaga rasuluhu al-kariim wa naxnu alaa maa qaala rabbunaa wa mawlaanaa mina ash-shaahidiin allahumma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 di jégglu soxna yeeg sëriñ si di ñaanal daara yeeg sëriñi daara yi dongay daara yeek yaayu daara yi tabarakallahu démb bi ñu yëkkati jataay bi ngi tolloon ci bi nu nekkee aéroport di waajal tukki tolloon ci formalité yeek ñoom seen yooyu waaye tolloon ci kàddu yi jub ci yëf yi sunu boroom naan inna ibaadi naan wa ibaadurrahman naan ibaadullah ak naan yaa ibaadi bu yëkkatee kàddu googu yal nañ bokk ca ñu dugg ci biir bu yëkkatee kàddu googu yal nañ bokk ña ca ñu dugg ca biir tabaarakallahu ñu doon yëkkati jataay bi ci biñ tollee ci innama yaxsha allaha min ibaadihi al ulama al ulama muy boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam mooy ni àdduna tëddee léeg-léeg gaa tudd leen ay scientifique wala ay savant walla ay philosophe wala wala wala ponkal yooyu nga xam ne ku ci al aalimul kabir zëndaani jàpp dana la wax xam-xam ca la nga nekk loo xam ne yow jàng nga ba sonn te xamoo ko nga ne ko wax lii mu na la yónnent bi yàlla bi mu yónni ci nun moo ko wax nga daan ne kii de yàllaa ko yónni ndax lii nga wax nii de bu fekkee moo ko wax moom nangam ki nangam al ulama moo tax xasiya gi ñu bëgg ko ci waaw ragal yàlla gi ñu bëgg ko ci ndax inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin waaw inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin teg ci ne walaw afnal funun jeexal jeexal yi taxuta am xam bu cag ragal yàlla amut jeexal téere yi taxuta am xam-xam bu cag ragal yàlla amut tukki baa ngi waaj ñu ngi soññ ñooñu innama yaxsha allaha min ibaadihi al ulama waaw boroom xam-xam yooyu alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ne ana uallimukum bi anna allaha wala ana alamukum billahi wa ashaddukum la xashya aw kama xaala ne maa leen gën a xam yàlla moo tax maa leen ko gën a ragal mu ne démb mécanicien yeeg ñiy yëngu ci oto xam nañ oto xam ngoo xam ne ni ñuy jàddale oto bokkut ak man mi nga xam ni xawuma ci dara waaw ñun ñi xamul ci oto dara ñeme nañu oto léeg-léeg nga jaar ci tëli bi gis koo xam ne xamul oto mu nekk ci digg tëli bi di pant borom oto naan ko puusal fi waaye moom du puus ndax xamul oto waaye ñu xam oto moom tabaarakallaahu yàlla it noonu la mel ñi ko xam ñëpp a ko ragal ñi ko ñemee dañ koo xamut hmm? waaw dañ koo xamut ci façon yëpp nag ci côté bu ne ndax koo xam ne mën naa ñëw sa kër fekk la ci say jeeg waaw mu rocceel ci sa biir yi jeeg say mbokk ne yàlla baax na sant ko koo xam ne ki mën naa fekk kilifa gu jiite barab mu jël koo xam ne kii mën naa fekk ku jiite nit ñu bari mu ñëw jël koo xam ne kii mën naa fekk xalifa mu jël lu ko ne sunu borom jël na ko ci pénc mi kooku ku xam ni muy defee ba noppi xam jant beek weer week biddiw yeeg ndox meeg yooyu yëpp ñi ci dugg ba xam li xew ak yooyu mënuñu ko ñàkk ragal alayhi salaatu salaam mi ko xam dëgg dëgg dëgg moo tax daawul tëdd cib lal daawul nelaw daawul ndangam wala daawul bëri nelaw laa bëgg a wax yu nekk ma nga ca mu ngoog mu wommat leen nag jëme leen ci boppam ñépp war di ko sant waaye na na ànd ak li ma def lépp wa qalilun min ibadi ash-shakur wa qalilun min ibadi ash-shakur nee na ñi koy sant nga xam ne lu leen mën a dal ñu sant ko bariwuñu ñu koy sant daal xéewal nañu ne alhamdulillah ñàkk naa xéewal ñu téye seen bopp te sax ñooñu tane nañ waaw ñu koy sant shakoor yi bariwuñu mooy koo xam ne kii nangu na ne lu yàlla def noonu la foo ko fekk rek alhamdulillah ca xol ba ca cër ya ca làmmiñ wa am na ñoo xam ne bu leen defalee ñu sant bu leen defalut ñu ne cell am ñoo xam ne bu leen defalee ñu sant bu leen defalut ñu sant waaw la ko la ko alxuraan waxoon waaw ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun waaw mu ngoog yàlla moomu kon faalam annahu laa ilaaha illaa hu daa war a leer ci penc mi ne ku moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla jenn yàlla képp a fi nekk moom muy moom faalamu annahu laa ilaha illa allah waxaat ne ilamu anna allah shadidul iqaab faalamu annama unzila bi ilmi llah ko loolu dafa rax nekk ab xam-xam bu waa penc mi xam bu waa ñiy waajal tukki bi xam moom rekk yàlla ku tër mbugal la moo wàcce alxuraan ji ci xam-xamam xam-xam boobu waaw xam-xam boobu mu ñu tudde ko maarifa ca ñenn ña mooy xam-xam bi lay xamal loolu di borom bi tabaaraka taala ak ñoo ñu mu def noo koy teewale ci sa xol loola mën laa jural expérience même boo demul ca daara ja jàngi koy xame ko ca mu tax borom laxdar yu góor gu dégg arab googu ba muy ñëw ci awalu maa yajibu al mukallaf tasxihu lam ca teg mooy summa maarifatu summa maarifatu mu indi foofu xam-xam ba tudd ba mu tuddee maarifa ndax nit da nga gis muy julli te boo ko teqantaloo woon farata yi xamu ko tey boo ne woon nogoy farata julli ñaata la lu ci xam boo ko lim la woon boo muy tuut bu def konkur du jël jël dara waaw mu tax xam googu boroom a ngi koy joxoñ ci alquran wa yawma naxshuruhum ka an lam yalbathu illa saatan min annahaar yataaarafuuna baynahum yataaarafuuna baynahum ataaruf fii am na fi njariñ lool fële njariñ la bariwul maarifa am na fii njariñ lool fële njariñ la bariwut hmm? waaw maarifa am na fii njariñ lool ci àdduna mooy xàmmee yëf yi waajal yëf yi teqantal ci sam xol ak sam xel yëf yi dem fële nag ñuy def taaruf di xamante foofa njariñ la bariwut waaw loolu borom bi tudd na ko wa yowma naxshuruhum ka an lam yalbathu illa saatan min an nahaar ne bis buñ dajalee nit ñi day mel ni àdduna une heure de temps lañ fi am yataarafuna baynahum ñu ngay xamante seen diggante kii du diw waaw kii du diw waaw mu fi lu fi xew waaw kañ lañ fi ñëw ndax daañ fi jóge yataarafuna baynahum ci loolu tam sunu borom subhaanahu wa taala ba muy nettali xissab yuusufa ba ba agsi ci ñu war a dajawaat ndax ay ata nga ci ginnaaw dañoo tàqali koo woon seytaane leen tàqali woon ci waxinu yuusuf ndax freer yaa ko takk sànni ca teen ba dem ñibbi toog ne seen bàyyi till ko lekk ne seen bàyyi till ko lekk loolu mooy seeni pexe pexem yàlla mooy génne ko ca teen ba yóbbu ko Égypte dugal ko kër buur mu génne kër buur dem ca kaso ba jóge ca kaso ba dem pale wa jaa ixwatu yusuf fa daxalu alayhi lu ca tege fa arafahum wa hum lahu fa arafahum mu xam leen dañu dugg si rek mu xool leen ñii niru ko magam ya mu xam ni ñii mooy magam ya mu konte leen ñu tol noona niroo lool bokk luñ sol waaye moo tax ba ñu dugg ca marché ba duggandoo wuñ ci benn porte mu ngoog waaw allazina ajnahumul kitaab yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum sunu borom nee na ñi nga xam ne joxañ leen téere démb ahlul kitaab ne nañu xam nañu yonent bi niñ xame seen doom yi hmm? waaw waaw xam nañu yonent bi ni ñu xame seen doom yi xam nañ muhammadun ca seen téere ya ahlul kitaab ndax téere bu ma si ñëw ci àdduna rek yonent baa nga ca muhammadun salawatullahi wa salaamu alayhi moo tax yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum mu sunu borom mi ngi wax yonent bi di ko nettali ci hadiis mu ne inna allaha taala yaqulu li axiri ahli aljanna duxulan a taarifu zaman alladi kunta fii fa yaqulu naam fa yaqulu naam mu ne ko ndax xam nga taahu aljanna ji nga nekk mu ne ko waaw mu ne ko mébétal mu mébét mébétal mu mébét mooy loo bëgg fii mu wax lam bëgg mooy ki mujj dugg aljanna waaye kooku su mébétee rek nga ne waaw ñu kon ñu njëkk a dugg moom lu ñu am waaw waaye lépp mu ngi ci maarifa waaw mi ngi dugg ci maarifa yaarifuuna nicmatullaahi nag summa yunkiroonaha xam ni lii yàlla ko fi indi nga du mooyu nee na loolu nag am na fi bëri na fi e, pénc mi nan ci moytu ba mañ koo def tabaarakallaahu mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot maa ci suuratu daariyaat maa ngi ci aaya cinquante fa firru ilallah mu ngoog borom bi subhaanahu wa ci xam-xam booboog sañ-sañam ak doxalinam te bañ kenn dugal loxoom ci yëfam bëgg nañu xam ko bu baax jox ko cër boobu xam-xamam boobu ci la doon waxe waa pénc mi na ngeen xam ne ku am doom yu jigéen maa ko ko may na ngeen xam ne ku am doom yu góor maa ko may na ngeen xam ne ku boole góor a ku jigéen mana na ngeen xam ne ku jaasir mana ndax innahu alimun xadir noonu la ko waxee ci alxuraan yahabu liman yashaawu inaatha wa yahabu liman yashaawu dukur aw yuzawijuhum dukuraanan wa inaatha wa yaj'alu liman yashaa'u aqiima waaw adduna noon la gis koo xam ne kii ay doom yu jigéen la am na Shuayb gis koo xam ne kii ay doom doom yu góor la am na Ibrahima gis koo xam ne kii aw góoraku jigéen la am na sallallahu alayhi wa gis ko amut ñu bari nañu gis ko amut nekk bu yonent te amoo waaye àdduna it ci noonu lay doxe fi ni wax nii am na nit koo xam ne moom ay doom yu jigéen la am kee ay doom yu góor la am kee am aw góor ak ku jigéen koo xam ne kii amul dara waaw li yaj'alu liman yashaa'u aqiima amul dara ndax innahu aliim qadir ñaari ñaari ñaari turam yooyu lay jëfandikoo foofu waaw lay jëfandikoo foofu moo tax mbokk yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot nag ci suratu daariyaat ay cinquante fa firru ilallah jëlaguñu départ waaye ñoo ngi ci formalité yeeg formation yi ñoo ngi ci formalité yeeg formation yi moo tax boo demee ci saar bi mu ne wa min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn la'allakum tadhakkarun foofu lu jiitu départ bi eh, moo am na ci solo boo jël avion di dem ber barab sàngam day jékki-jékki séddale kayit këyit ba laaj la foo jóge laaj la foo jëm laaj la noo tudd laaj la ah, euh, góor nga am jigéen waaw laaj la yu baree bare bare nga remplir ko ca feuille ba boo wàccee jox ko réew ma nga jëm boo leen ko joxee rek ñu daal di tàmbalee xam foo jóge plus sa passeport ak sa visa mu ngoog salawaatullahi wa salaamu alayhi ci tukki bi mu ne ko am na ñoo xam ne ku xool ni ñu mel bëgg leen beddi hmm? mu ne ko maa la ko wax yéen ci aéroport bi yéen a ngi bëgg a tukki waaye am na ñoo xam ne ku xool nañu mel te natt ko ca ñooña natt ko ca loola beddi leen wala tatrudi alladina yad'uuna rabbahum bilxadaati wal ashi yuriduna wajha mu ne ñi nga xam ne dañuy xëy di jaamu seen boroom bu ngoonee ñu ne ca mbubb mu woyof mu tax nga beddi leen ñàkk xaalis bum tax nga beddi leen melokaan bum tax nga beddi leen ndax ñoom yuridoona wajha waaw yuri doon waj wajha dañoo bëgg ànd ci tukki bi ba leen beddee duñu dem te seenu ñàkk dem waaw gënalul yàlla waaw gënalul yàlla kon bu leen beddi bu leen beddi de ngoog mu am ci biir saxaaba yi ku dund loolu borom bi nag ci la ko te waxulu turam waaye ba mu daaneele rek waa pénc mi ñëpp am kuñ joxoñ hmm? mi ñëpp am kuñ joxoñ ma xama mu am solo la maqaamam def te yàlla tax yuriduna wajha maqaamam def te yàlla tax waaw ak am solo ci tukki bi euh, borom bi def ne wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza mu ne am na ci pénc mi koo xam ne mi ngi def te fay bor taxul mooy def li muy def mi ngi def lu baax waaye fay bor taxut def ndax ñu fay ko bari taxut maanaam leblewut fayut bor wa maa li ahadin indahu min nicmatin tujza ndax fay bor ci mbir mi yomb na tey su ma doon dem dab ci tëli bi oustaz Alaaji Daraame euh, ci tëli bi yóbbaale ko loolu fay bor la wala ma dab oustaz euh, xaali tabarkàlla waaw oustaz xaali sayid xaali bu ma ko daboon ci tali yóbbaale ko loolu fay bor la waaw yooyu yu baree baree bare ngi ne boo daboon nit ci tali ma dab Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ci tali bi yóbbaale ko problème bi kay mooy nga dab koo xam ne ki xamu la xamoo ko ñemewul sax arrêté nga taxaw loolu moom fayoo bor loolu moom fayoo bor peut-être nga leble waaye wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa leble ga it na doon leb lebal sa boroom ndax ki taxaw ci tali bi nga di ko yóbbaale bu fekkee am nag payit pay ga bëriwut illa ibtiqaa wajhi rabbil a'laa nee na jëfam jooju jëmmi boromam rekk a tax mu def ko mooy ki muy wax nii dafay dox ci màkk ba mu yàgg mu séen kuñ jaaxaanal ciw naaj kuñ jaaxaanal ci aw naaj teg aw xeer ca dënn ba di ko wax loolu jaaduwut waaw euh, mbokk ma séen ko daal di cay ñëw daal di laaj lu xew fii ana doom aadama nuñ koy jaaxaanal ciw naaj di ko dóor waaw ana liberté ana démocratie xanaa seeni oto paan waaw xanaa seeni oto paan ana Amnesty International ana waa droit de l'homme waaw waaye fi ci pénc mi léeg-léeg ñu ci mbugal nit nit ñi mën nañoo dékku mbugal mooma mu am ku ñuy mbugal ci pénc mi waa pénc mi mënuñoo digérer mbugal moomu ñaari nit lañu kon ñaari nit lañu kon wa ma li ahadin indahu min nicma wa ma li ahadin li ahadin indahu min ni min nicmatin tujza amul lenn lenn lu kii tëdd defal kii mais penc mi da ngay bokk wala ñu xam la lool wala wala wala nekkoon bu ñu la tëralee ci naaj wi kenn du intervenir moom mu ñëw intervenir ndax lan illa btiqaaha wajhi rabbihi al aala illa btigaaha wajhi rabbihi l la ca sunu borom teg nag moo neex ñépp waaw mooy yëngal sëñ bàkk si la ba mu ni cee alxuraan mooy wala sawfa yarda wala sawfa yarda waaw bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw danga nga kontaan sa jëf ji moo tax jëf jooju ñu bëgg ñun ñëpp ñu ñu ñu yóbbaale ko jàng ko yaru ci te mooy def te yàlla tax def te yàlla tax waaw lu jafe nag la jëkkër ak jabar léeg-léeg ñu nekk duñ toll buñ tolloowul niveau lu jabar def muy coow buñ tolloowul niveau lu jëkkër def muy coow waaw buñ tolloo niveau nag mën nañoo bokki def ndax suuratul na day yëgle ne nit mën naa nay ba nay ci poosub jàmbur waaw Serigne Cheikh moo nu ko doon jàngale noonu nit mën naa nay ba nay ci poosub jàmbur am poosub jàmbur loo ci naye waaw waaye léeg-léeg gis jongama joo xam ne daa bëgg a def lu baax nette xeet dara jëkkër ji ne ko pourquoi waaw wala jëkkër nette xeet dara jabar ji ne ko pourquoi waaw yombut de yombut de waaye daal mu ne ko wala saw fa yarda bis bu say bokk noppee ci yow ca laa lay jël man bis bu say bokk noppee ci yow takk say tànk sang la sang mu rafet sang la càngaay lu rafet tëral la tëral bu rafet ñaanal la ñaan gu rafet waaw gasal la pax mu rafet imam musa Gueye moo ko jàngale noonu bu RTS <laughs> yal na ko yàlla yokk wér mu ne loolu rafet rek la ci yàlla yi teg waaw waaw lu rafet rek la ci yàlla yi teg yàlla ko ca teg waay mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot <clears throat> mu ngoog sunu borom nag jàngal ñu ne xad jaala li kulli shay'in qadra xad jaala allahu li kulli shay'in qadra ndeysaan lenn lu ne yàlla da ko wutalub àpp kañ lay tàmbali kañ lay jeex lépp ci loxoom xad jaala allahu li kulli shay'in qadra ndeysaan diggante bu ànd ba mu yàgg kenn kat dem waaw yàlla nee na loolu man mii maa koy def maa wutal àpp moo tax wolof di wax ne sol saw daal dox ba mu yàgg war a wane kettet dagg day bette hmm? waaw mu ngoog day bette waaw kon maarifa muy xam googu borom baa ngi wax ci alquran al arabu al arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru allaa yaalamu xuduuda ma anzala allah ala rasulihi waaw mooy ñi nga xam ne dañuy dëkke tuxu te dëkk ca sori fi ñuy waxtaane njub duñ ko fekke fi ñuy waxtaane alquran ak yooyu duñu ko fekke ku dem mësuñu koo dégg sunu borom nee na kufru foofa la ëppee waaw nifaax foofu la ëppee ñàkk xam li yàlla yi tere it foofu la ëppee xuduud ma anzalallah mu tax sunu réew mii fim ne ñi nga xam ne jànguñu tubaab ñi nga xam ne jànguñu tubaab liñ xam ci luwaay penc mi bariwut liñ xam ci liy doxal penc mi bariwut ñu fexe ba ñuy jàng tubaab bi liñ xam ci diine bariwut adduna tukki adduna tukki penc mi fexe ba ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab liñ xam ci diine bariwut wax ma nag ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàng daara liñ xam ci penc mi bariwut wax ma nag ñëpp loolu day tax penc mi kee ma ngay def naka su dul noonu kee itam di ko def te fekk na ku ci nekk la nga xam ne ma ngi koy def ci ñàkk a xam la tege mbokk yi wa tilkal amthaalu wa tilkal amthaalu baay mu du jaxate bi ñu umeeg léegi li ma fi jot a wax bu fekkee exemple yi jub na bu fekkee léeb yi jub na bu fekkee misaal yi jub na sunu borom ne na wàccilkal amthaalu li ngeen fi dégg lépp ay exemple la ay misaal la nadribu haalin naasi ñu koy tegal nit ñi waaw wa ñi xam a koy xam xam a koy xam ñi xelloo koy xam ñi am xel koy xam waaw waaw mbokk yi ba am amthaalu moo tax borom bi tabaaraka taala mën a jàngale ndaxte teg ay exemple rekk la man waaw jumtukaay pédagogie yi nekk ci école yi bu njëkk bu njëkk boo ko laajee équipe bi def nii ni euh, sud éducation jumtukaayu def daan nekk ci école bi jàngalekat bi bu waxee dara di joxe misaal wane ko ca waaw wa maa yaqiluha illa al aalimuuna maa ngi ci suratu daariyaat maa ngi ci ay cinquante tabarakallah avion bi teer na nag <laughs> avion bi agsi na sànq bi war a jël passager yi war leen a yóbbu ilallaahi fa yàlla ñu nekk seen kër ñu nekk seeni néeg ñenn ca jàkka ya ñenn ca jumaa ya ñenn ña nekk ca ndeysaan e, bureau ya ñenn ñaa ngi ca daara ya ñenn ñaa ngi ci école ya ñenn ñaa ngi ci université et cetera avion bi agsi na e, gaa ñi contrôler kayit yi ñi ngi xool ku am ñeent yéeg ku amul ñeent yooyu doo yéeg bàyyi moodu <laughs> ku am ñeent yéeg ku amul ñeent yooyu mbaa nga manqué ca benn doo yéeg hmm. ndax avion bu taxawee ñaari gars yi dañu xool kayit yi bu ñuy embarqué kon ñoo ngi bëgg embarqué embarquement immédiat ñeent la gaa yi di xool bu dee ci am suñu aéroport yi léeg-léeg passeport la ñuy xool ak euh, billet d'embarquement bi jëmbul yeneen ya muy visa ba ak euh, bie ba moo leen di ñeenteel isan mbokk yi jël leen bindukaay yi waaw jël leen bindukaay départ bi mu ngi bëgg jot embarquement immédiat euh, dans quelques minutes euh, ñu ñu ñu jël avion bi yàlla naa bokk ci ñuy tukki ngeen bokk ci ndeysaan yàlla naa bokk ci ñuy ngeen bokk ci waaw jël leen bindukaay bëgguma ko yàkkamti ndax ñi note mën a jël bindukaay waaw ñoom ñoom inspecteur Arfan waaw ñoom maam maam Mbay Tunkara ci Thiès nee na ma léegi bokk na ci ñuy noté merci kon am nañu cinq ñuy note <laughs> amoon nañ ñaari jigéen am nañ ñaari góor kon walla ñu am nañ ñetti góor waaw kon noté leen ak professeur Jibi ñeent yi nga xam ne ku ko amul doo yëg ku ko amul doo yëg ci bi noonu gaa yi duñ la bàyyi nga yëg ñeent yooyu benn bi mooy al yaxasa ku amul yaxasa doo yéeg benn bi mooy al ku amul fikra doo yéeg benn bi mooy al ku amul basira doo yéeg benn bi mooy amul al azm doo yéeg waaw euh, benn boroom xam-xam bu mag ci xam-xam bii ñuy jéem a jàngale xam-xamu yëg-yëg ñu mi ngi tuddoon euh, al imaam ibnu qayyim la tuddoon al jawziya waaw xam-xamu yëg-yëg xam-xam boobu di xam-xamu yëg-yëg ma nga départ woon ca kera ba jibril ñëwee ca sallallahu alayhi di jàng si ca question ya waaw troisième question ba moo juróon xam-xamu yëg-yëg yi ndax dama na ko ma maa huwal islaamu maa huwal imaanu troisième question maa huwal ihsaanu waaw maa huwal ihsaanu muy xam-xamu yëg-yëg yooyu kon ñeenti ñooñu la tudde woon moom ibnu xayim al manazil al arbaa al asasiya al al ula nun la ko tudde woon condition bi nit ki yéegee ci avion bi pour nu dem ñeenti yëf yooyu la waaw kon noté leen ko noté leen ko de waaw ñu noté ko nun tam nun ñu koy wax al yaqasa al fikra al basira al azm al moo di ak yeewu moo di ak yeewu alfikra moo di xalaat albasiira moo di xam walla gis gisu xol al moo di dogu ñeent yi lañuy laaj ku bëgg a euh, nekk ci euh, ku ne ci óol bi te bëgg a yéeg ci avion bi ba ñëw ci portu bi nga xam ne ci la ñuy yéege nga tàllal sa passeport ñeent yi lañuy seet kooku ko am da jàll dem yëg ci avion bi yàlla nu ko am ngeen am ko waay Baye Modou Jaxate kon tukki baa ngi nag départ fafiru ilallah hmm waaw waaw la ci jiitu kon mooy alyaxasa sunu baaji xaaji abbas sàll xam ngeen sax mokkal ngeen ibaara bi ma ciy wax te nekk ibaaraat yu baree bari ci moom ndax moom kenn mësu ko wër te yeewuwoo ma wax la ko tey kenn mësu ko wërti te yeewuwoo yeela nga ne jar ñu ko ci raw bariwut ndegam am na waaw yeela ba nga ne jar la sëñ Fallu waxoon ne sëñ Modou Moustapha leen ko defaloon waaw tabarkal waaye Hadj Abba Sall moo daan wax ne bàyyi leen waaraate wi ñu ne ko lu ñuy def mu ne yeete bàyyi leen waaraate wi yeete al sax moo dégg yeewu yeewu googu du yeewu muus ba mën a am xaalis yeewu googu du yeew ba mën a togg ceebu jën hmm? déedéet nelaw yooyu it du nelawi lal bay bay xaran waaye nelawee dox ci mbedd mi tey nelaw la mooy nit ku yëgagut xamagut lu ko fi indi nit ku ne ci àdduna xamagul li ko fi indi lu jóg mu jóg lu yëngu mu yëngutu lu daay mu daay lu tëdd mu tëdd kooku xamagul li ko fi indi xamagul li ko fi indi moo tax bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw eh, borom bi tabaaraka wa taala wax nu li ko fi tax a ñëw du gàddu yet góor-góor nu yóbbu aljanna loolu tax ko fee ñëw déedéet gu gàddu yet góor-góor nu jëmee aljanna loolu tax ko fee ñëw ma sunu borom lu ko fi tax a ñëw mu ne ko xol xol wax ko sa discours d'ouverture sa discours bi ngay njëkk a def gis ngeen ne bu ñu falaan mini premier ministre mu def benn discours bu politique rëdd ay rëddam waaw alayhi salaatu wasalaam loolu la jëfandikoo sunu borom ne ko xul waxal innama aizukum bi waaxida innama aizukum bi waaxida sama mission bi lépp lépp lenn képp la hmm? waaw waaw sama mission bi lépp guddaay beeg gàttaay beeg lépp lenn képp la mu loo fi wut si an taqumu lillaahi ngeen jóg wuy ji yàlla loolu rekk laa fi wut si an lillaahi ngeen jóg wuy ji yàlla waaw bu doon ko yeete añ ndaw kundaa yépp jóg topp ko bu doon ko woote ndogu ndaw kundaa yépp jóg topp ko waaw ñëw na nag ndax bëgg yee waa pénc mi ñépp waaw bu ñépp yeewoo mu jiitu ñu topp ci fu ñu jëme lillaahi allahu akbar lillaahi masna ñaar ñaar baax na wa furaadaa kenn kenn baax na léeg-léeg ñaar yeewoo ndool léeg-léeg kenn yeewu mu tax conférence yi koor gi boo toggee ci tribune bi boo ca amee ñaar santal boo ci amee kenn sax santal la waaja doon conférence ñu yëgle ko conférence ba siiw lool waaw waaye ba mu ñëw ci salle ba kenn la fa fekk ak président science bi ak ñooñu ñuy organiser mu ne tey laay tey laa ma sa conférence tey laay conférence mbokk qul innama aysukum bi waaxida an taqumu lillahi mathna wa furada kon li njëkk ci tukki bi ñu koy seet ci ci document bi nga xam ne ku ko amul doo yéeg la ci jiitu mooy al yaqasa waaw yàlla na nu ko am ngeen am ko maa ngi ci suratu daariyaat maa ngi ci ay cinquante fa firru ilallah embarquement immédiat teg leen seen baaram foofu ñaan sunu borom may nu du dund ba suba te weesu ko yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ko wër wooy def yi nga xam ne ñu ngi góor góorgóorlu ci biir koor gi ñu ngi wax ñëpp waa leen góor ndax weer yu promotion la benn cinq mille boo ci joxe juróom-ñaari téeméeri cinq mille ngay am benn million boo ci joxe juróom-ñaari téeméeri million ngay am loo ci joxe rek juróom-ñaari téeméeram ngay am te yu daa fi la li li jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen euh, ki nekkoon ci wàllu xarala yu moo di seen mbokk Alioune Badara Socé tabaarkalaaw yàlla na yàlla nangu kooram nangu suñu koor ñu àndoon ci te ngeen ànd defar beeg seen mbokk alin Sall yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir def ci poche yi dara waaye suqali suñu sponsor yi nga xam ne ñoo ñoom ñooy ànd bi koor gi tàmbalee tabaarkalaaw wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.